la dal Ameth Ndoye ba yoon teg ko loxo am na kenn ku bokk Pastef ku am ñaar fukki at ak benn ab sapeur pompier di baayam mu yor ab oto bu ñu def ay logo Pastef doon dawal sans permis yoon teg na ko loxo. walaay ndeysaan mais amut Pastef laa bokk wala Sonko laa faral réew mi moom ku jàdd yoon rek yoon fay dal sa kaw moo tax jàpp nañ ko le peuple yéen a kaay ne askanu baasul ñoom ña nga ca naqar ak tiis ña jooy seeni doom fukki doom ak juróom benn yu faatu ci géej gi fa ñoo duggoon ci gaal goo xam ne téeméer ak fanweeri nit a fa nekkoon gaal ga nag yegg na Espagne waaye fukk ak juróom-ñeent ca ñoom fa ñoo faatu démb ci talaata ji lañ yegg Espagne libération moom ñoo xamal contrat PPP yoo xam ne fañ koo signé te dara jaaru ca yoon lii yéen kaay moom fa dikkaat ci hommage delloo njukkal bi ñu bëri amal jëmale ko ci Moustapha Ba jëwri ji ñu dénkoon wàllu kopparu réew mi génn àdduna ca Paris France le verdict tamit fa ko defal hommage Vox Populi moom fa ñoo xamal ne watem njiitum réew ya ca Amérique Donald Trump xaw na yoonu nekkaat président bu Amérique de baax na li baaxut ci Man City mooy démb fañ koo mbuqi ñeenti bal ci benn ngeen déggee ci ne maa ngi ci tàggat yaram waaye tamit équipe bu mag a mag bi Real Madrid buñ ci waxut léegi ñu dee de ah man dafaa jaaxle Milan AC moo fekke Real biir këram na ko man it faa lay jàngal football ni la Barça def rek Milan fa jàpp Real di ko mbuqi fa koo di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi bi muy bëgg dee ñetti bal ci benn lu mësta am ci kër su fa xamee rek gan ña Sañala Mbappé lii moo ko yóbbee Real léegi ñu dee de. regroupement <sighs> booba ginnaaw xeer bañ ko xaañ te wu ko gën a ci liggéey bi wallaay ndeysaan euh, Hervé Renard wax ji mu wax jëmale ko ci fédération sénégalaise de football Augustin Senghor nee na du dëgg te moom gisul benn leetaram waaw Sénégal match bi moom jeudi dinañ jot list bi war a football waaye defuñ conférence de presse ci yéenekaay yi génn nañ Moustapha Ba ñu koy delloo njukal ndax liggéey bu am solo bi mu daal liggéey ci réew. duna yàlla na leen yàlla nemmeeku nañ ko foofee ne ca aselem nga xamante nag daal ñaari nit yu góor lañ jàpp daal ñoom ñaar ñu doon sëy seen biir kenn ki nag am ñaar fukki ak juróom-ñett ak keneen ko xamante ne daal itam am na fanweeri at ak juróom ñoom ñaar ñëpp daal lañ daal di bett ñu def naka su noonu ñoom ñaar saa itam ganaaw bu ñu leen jàppee daal lañ leen lañu daal di yóbbu ca kanamu procureur de la république mbir mi nag sax ñu ngi ñi xam ne nag ñoom ci benn réseau social daal lañu commencé xamante dem saa itam daal potager ay mbir yoo xam te ne daal jaaduwul benn yoon moom sax daanaka li leen feeñal ren moom moo di portable waaji di toll ci fanweer ak juróom nga xamante ni dañ ko daal di sàccoon lu ci mënti am daal moom mi nga xamante ni nag moom moo di waaji jamono bii dañ ko daal di placé en garde à vue moom ak naataangam yi nga xamante ni daal ab gendarme la mbir mi nag fan lay mujj lan la procureur di jël comme dogal lu ci mënti am daal dinañ ko xam fan yi ñu daal di ñëw ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de <laughs> wax garaaw na wàllum transhumance gi lée ca nguur ga waaw Pastef moom mbaa du ñoom it la ñu wàcc woon dañ koo bëgg a lekk libération yéene kaay ne waaye yow gis nga contrat de partenariat public privé PPP yooyu nga xam dañ koo signé diggante 2016 ak 2021 waaw tout est illégal dara doxu fi laa wax baaxul le conseil des infrastructures nga xam ne moo war a nekk na ca projet PPP yooyee waaw gars yi xoolal dañ koo ignoré amul budget ay membre am toog kër ay waaj jële daal di contourner le conseil des infrastructures waay neex def def def mu waay dama xoolal ma gré à gré cent treize milliards planète woon la waaw ak son directeur exécutif bi lée mbir maa ngi leen dabee kon fële Malte ca Paradise paper ya ñoo ñoo leen jàpp de dab leen dama ne la ñetti weer yu njëkkii rek ci 2022 waaw quatre cent vingt sept milliards cinq cent quarante trois millions nañ ko ci ay gré à gré Von Roche Lighting soixante dix neuf milliards huit cent trente millions la ilaha illallah Ragné laa ilaha illallah non non non bàyyi naa dem naa ca football ba booy actu sport ne Milan AC day dugal na Real Madrid nag ci crise démb day 3-1 la ko door Ligue des champions laa ilaha illallah waa Lille ak waa Juventus dañoo mujj match nil waaye Pep Guardiola mi le Sporting moo ko humilié doy na waar Record Sport ne trois jours la ko xamle nañ ne danañ bokk ci liste bi de le peuple sport nee na Hervé Renard mi ne woon waxtaan am na day digganteem ak Sénégal Augustin Senghor day ma ngi koy weddi adina badal xarit bàyyi naa la Sénégal génne na fukki milliards ngir fay bori pomme de terre ak ñi koy liggéey ak ñi koy jaay ngir loolo bañ a manqué ci réew mi le 15 novembre bi ñu ne état bi dakkal na lépp luy génne gerte gu ñu defar ba noppi. tigga ji moom ci réew mi lay des président de la république Macky Sall ba woon nee na bi muy dem dafay bay réew mu nekk ci jàmm justice sociale bi lépp. saawan bawan waaye ñi fi nekk ci juróom-ñetti weer ñu bëgg ko yàq moom bu noppee ci loolu day mel ne da koo seetaan ñii nañu xoolaat seen toogin balaa ñuy mel ne dictature la ñuy dund lu mitee dal waa Pastef seen caravane bañ doon def ca Mbàkke jenn waay moo ci ñàkk bakkanam ci benn pick bu këpp am ay ñu ci am ay gaañu gaañu waaye nag loolu ba mu amee Papa Djibril Fall jébbal na ak njaalam woo ay militant ngir ñu dem may ji deret ngir sowe ñi gaañu Amadou Bayit jëbbal na njaalam woo ñi gaañu Ousmane ko ca Fuuta ko fekk muy defu caravane silencieuse ngir dundu dëj bi ba noppi suspendre agum ay campagne waa sàmm sa kàddu ñoom nee nañu bu ñu nekkee assemblée nationale majorité danañ voté loi bi dàq nguur jigéen waaw. néegu ya buntu ba ubbeeku na. li nga xamante nag itam moom moo di immigration clandestine bi daal mi ngi woy ba tey di gën a fii ci diwaanu senegal ab gaal gu nga xamante ni nag yeboon na téeméer ak fanweeri nit yu nga xamante ni daal ñoom seen mbir moo nekkoon dem foofe ci diwaanu Espagne gaal gi nag ba tey kenn gisu ko furaas daal di xëddim ñu ngi ñuy xamante nag gaal gi daal am na sax ay jigéen ñu nga xamante ni yeboon na ko ak ay mineurs yu nga xamante ni ñu ngi déparé woon foofee ne ci diwaanu Basul ji nag askan wa nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ne ci diwaanu baasul daal ne nañu depuis le 20 octobre ba tey gisuñu gaal ñu gaal waaye tam sax amuñu benn xibaar bu nga xamante ni mën nañ koo am ci seen mbokk yooyee nga xamante ni ñoom ñu jëloon gaal ngir bëgg a dem foofee ne ci diwaanu Espagne ci sax ay kër yu nga xamante ni daanaka lépp ñaari xale wala ñetti xale daal dem nañ ci ñoom nag jamono bii leen rek la ñu bëgg a moo di ñu ne seen mbokk yooyee àgg nañu am ci ñu nga xamante itam daal ñoom seeni borom kër ñoo leen wàcc foofu ñu daal di wane lor waaye nag jamono bii ñoom sax gëmuñu ni ba xam la nga xamante ni moom lañ li yenn mën nañ koo wàccee ndax nag daanaka sax jamono bii mënatuñoo lekk mënatuñoo naan di xalaat ana di jaar ci géej gi nekkee jamono bi leen rek lañu bëgg xam moom moo di nguuru Sénégal dimbal leen pour ñu xam xam ba xam seen mbokk yooyee ñu ngi dund mbaa dañoo dee beneen gaal itam daal di àgg foofee ne ca diwaanu Espagne gaal gi nag itam bile yoon daal di toll ci nit ak lu teg waaye itam nag am na sax kenn ku nga xam te ne daal ñoom bu ñu yeggee foofee ne ci doon Espagne boo fekk na mu daal di ñàkk bakkanam lu ci mënti am daal géej gi nag ba tey jii nii xale yi tey lañ ko gën a ñamee donte saa itam gis nañu ay promesses yu nga xamante ni ñoom suñu njiit yi defal nañ leen ko waaye nag ñoom daal jamono bii lañ jàpp rek moom moo di mënuñoo xaar ndax temps baa ngi dem am ci saa itam kenn koo xam te ni daal moom ay confidence am moom moo di bu dee da nga toog sa kër ñu lay gaaruwaal wala itam saa nga toog ak say doom baay yu nga xamante ni seen yaay saa su nekk dafa yàq lu ñaaw sa wajur loolu nag leen rek nga mën moom moo di dal di ab gaal nga am ba ñàkk ñoom daal loole lañ gis te diwaanu saa itam jamono bi ñoom itam ñu ngi jooy seeni ay doom ni ñoom na ci ñu nga xamante ni nañ seen bakkan ci géej gi lu ci mënti am daal jamono bi nakar ak tiis daal la ngi ne meeku ci yenn gox yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal am ci sax itam ñu nga xamante ni daal ñoom ni nañ daal jamono bi gisuñu seen doom war a nag ñu am tiitaange naataange ba sax seen doom yooyee jëluñu la nga xamante ni moom moo di eh, gaal gi ngir dem ci diwaanu Espagne ñu wax itam ci beneen mbir bu nga xamante ni xew na démb talaata ji foofee ne ca diwaanu Kaolack mu di procès bi nga xamante nag daal dafa opposé woon eh, kii di Serigne Mbaye Niass ak Alliance Adik waaye itam sax ak Serigne Buub mi nga xamante ni daal moom moo di jaraaf euh, bu Kaolack euh, projet boobee nag dañ ko daal di renvoyé ba ba le 21 janvier 2025 maanaam ñaar fukki fan ak benn ci atum 2025 euh, moom président bés bi nag li mu sàkku rek moom moo daal ñu daal di dàq nga xamante ni di audience boobee ne ci fàttali nag mbir mi nag liñ ciy daal di toppee rek moom moo daal wàllum décaissement de fonds bi nga xamante ni daal moom mi nga xamante ni moom moo di mbeeru Kaolack di Serigne Buub daal liñ koy toppee rek moom moo di détournement de deniers publics euh, faux et usage faux waaye itam nag vol en réunion escroquerie à la municipalité de Kaolack lu ci mënti am daal ñaar fukki fan ak benn eh, ci weeru janvier dinañ xam ana fan la wànnent eh, di mu jekki gëtëm moom Adien di ab étudiante bu nga xamante ni daal toll na ci ñaar fukki at ak benn moom nag sax daanaka mbir mu doy waara waara waara waara jamono bii moom moo ko daal di topp ndax nag moom li nga koy toppee rek moom moo di jur doom daal di koy fàtt eh, bu ñu nag ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko moom nag xale boobee sax mi dëkk ca village bu ñu naan meewaan cacaaw nekk nag ci diwaanu Ceeskaay moom xale bi daal daanaka fa sëy si woon foofee ne ca diwaanu ndakaaru njaay waay nag moom sax sëy si ret am ñaari weer daal di am doom loolee la daal di def waaye nag neen sax ëmb boobee def ko daal di nëbboon moom xale bu jigéen boobee ne saa itam moom mu daal di weddi la nga xamante ni moom moo di version wu doom boobu daal di faat li mu jàpp ret moom moo di daal moom daanaka bi mu maanaam sëy see daal la daal di sentir ni que am na lu nga xamante ni moo ngi ci biiram moom nag sax mbir mi dafa daal di génn naturellement waral nag mu daal di koy tëmbal ci ab foos bu nga xamante ni daal ndox la ji këpp mu daal di loolu nag itam daal jàpp ni daal loolee jaarul benn yoon ci dégg-dégg bi nga xamante ni ñoom enquêteurs yi am nañ ko lu ci mënti am daal moom soxna nag jamono bii daal nañ koy defeere ngir xaal ana ban dogal la yoon di jël ci kanamam daa ji koy tëjee itam ak mbir mu doy bu nga xamante ni daal dafa am foofee ne ca diwaanu Kédougou mu di benn waay bu nga xamante ni daal moom ku siiwoon la foofu ca seen marché ba doon fa nekk nag ab commerçant bu rëy moom nag tax daanaka ab natt bu nga xamante ni daf koo tëggoon mu nekk nag natt boo xamante ni jënd ci ay terrain ngir yenn ci ay commerçant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ne waaye nag moom daal defalul daal ba tey natt ba nag ba mu toll ci lopp ñaar fukki million xëy rek ne fouraas daal di xëdim kenn gis ko war nag moom sax biñ ko woowee daal dafa daal di wuy ci WhatsApp am ne kat moom tukki na mu ngi ci diwaanu Canada ne nag mbokk yi bu dee mën ma xaar daal ngeen xaar ma fii ay at bi su ma liggéeyee dinaa leen delloo la nga xamante ni moom moo di seeni koppar mbokk yi nag dinañ laaj ba xam tey nag ndax wóorati na jamono bi ci réewum Sénégal ak dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba subaa ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. tikkatina. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës yëglekaay yi. mesdames et messieurs bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex mox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw laan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet te te te ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm bu subaak jàmm incha allah jàmm C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la ci dong mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. <laughs> tey lii moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama a ngi doon déglu seen revue de presse te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah